بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نور الهادي بديع الذي أنزل الكتاب نورا هاديا إلى سبيل الأقوم وطريق الأسلم والصلاة والسلام على من قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوك جلتي bokki réew mi ak bitim réew comme nuñ ko baaxoo di defee ak yéen saa su ne ci seen chronique bu ñuy def semaine bu jot nga xam ni li ñu ciy topp rek mooy di waxtaan ak yéen ci li nga xam ni mooy xew-xewu réew mi waaye nag di ko teg rek ci lislaam di ko teg tam ci àtte diine waaye di ko teg tam ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ku ne xam na ni yonent bi nee na jotte leen leen ma donte la benn aaya la te ñun sunu référence yépp mooy la yonent bi waxoon bàyyi naa leen ak ñaar bu ngeen jàppee ci ñaar yooyu du ngeen sànku du ngeen réer mooy alquranul karim ak sunnaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taraktu fiikum amrayni maa tamassaktum biima lan tadilu kitaaballaahi wa sunnati ñaar yooyu nag moom la ñu fas yéene teg sunu tànk di ko ànd ak yéen saa su ne semaine bu jot fii ci Thiès Info te mooy dellu si waat mbokk yi ñu dellu si waat ci li nga xam ni amuñu lu dul moom te mooy diine wa man yabtaghi gayra islaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasiriin beneen diine boo jàpp bu dul lislaam bu ëllëgee sunu borom nee na dangay bokk ci way perte ya moo tax ñun ñuy wax ak ñépp rek baw ñu kenn waaye ñu am tam loo xam ni dañ ci delloosiwaat nit ñi te mooy réew mii di senegaal dafa doon réew moo xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk lu ñëpp bokk nag kenn ku ci nekk cër ba nga ca am da nga koo war a sàmm waaye cër ba nga ca am da nga koo war a téye naka la ñuy téewee suñu cër bi ñu am mooy ku ne fi nga mën a nekk te mën faa jàllale message buy tax éducation am stabilité am dafa war ci yow nga def sa kim kàttan pour stabilité boobu am Senegal fi moutol. Nek nere ou mou khamni, da fa amyoun yo manke. Li yon nyek manke djamouni bi, mou met lor. Met aske nwi lor, met diyne di lor, waye met populasyon Senegalese bi yop. Bi nyek moun, Senegal amotouni sekurite. E sekurite, bari neti re ou. Bi jitop moun, Sénégal amatuñu repère fu ñuy roy pour mën a teg suñu tànk pour am éducation bu baax beneen bi ci topp mooy Sénégal li ñu manqué mu doon pertement ci ñun mooy tarbiya te mooy éducation mbokk yi lii nag képp kenn ci ñun ku mu mën a doon fi nga nekkee te mën koo jàllale ba ci kër yi ba ci mbedd mi ba ci pénc mi mbokk yi ku ne su fekkente ni yàlla may na la kàddu goo xam ni soo waxee dinga delloo si benn nit na la ko jaral ndax fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin xoolal réew mi ñu ne di Sénégal sunu borom daf ñu am lum ñu waxoon mbokk yi ku ne xam na ni Sénégal gi insécurité daf cee am insécurité bi lu koy indi mooy agression rey guddul jeex agression bi lan moo ko indi mooy éducation bi ni ñu waroon yare njaboot gi yarewuñu ko njaboot gi ba mu jural ñu su éducation boo xam ni baaxul te éducation de base dafa am solo mooy defar pénc mooy defar société mooy développer am réew waa ndax Sénégal am na loolu ndax réew mi ñu ne am na loolu mbokk yi gis nañu agression rey nit kañ lañuy am saafaraw rey nit mbokk yi jàpp doomu aadama rey ko reyin mboo xam ni après résultat bi zéro lay doon mbokk yi ndax loolu mooy mooy avancé lu am réew xoolal fan yi paase ñëw nañ ci ak yéen wax leen ko mooy soxna soosu nga xam ni rey nañ ko fii ci kër Masaar muy soxna Mariama Sagna ñu rey ko fii ci kër Masaar loolu war a am suivi war ñu bàyyi mu sedd ndax réew sécurité moo ko yor loolu war ñu bàyyi mu sedd déedéet nañu topp ba xam ñen ñoo rey soxna soosu di Mariama Sagna man lu ma metti la ah. lu ma metti la loo xamante ni non seulement metti na ma waaye mën naa ni metti na Sénégalais yépp ku rey xamuma nuñ ko reyee xamuma nu ñu def ba mba rey ko xamuma mais dama ne rey gi agression bi muy benn fii ñu dëkk ci Thiès fii ñu dëkk ci Thiès fii ñu dëkk ci Thiès Medina Fall bërki démb bu ngeen seetaanee ci net bi ngeen ko gis am na sa ndaw soo xamante ni yàlla def sutura mais dañu ko doon rey ndaw si doon nettali te naan bi ñu sottee 40 euros lañ ca fekk ndaw soosu bu amuloon sang froid yàlla amul yër yërmande amul dalul antak ak sagoom heure bii lu ñuy wax mooy am na ku dëkk Madina Fall rey nañu ko beneen bi mbokk yi xoolal bërki démboo njaay fii ci dixième soriwul dara fii ci dixième Pape nga xam ni rey nañ ko woy juróom ñëpp xam ko ci sees góor gi Mikaayil Mbay nga xam ni rey nañ ko kan moo ko rey dëkkandoo voisin ci lan mbokk yi ci maali Foro lu waral loolu insécurité bi nga xam ni am na ci réew mi ndax insécurité boobu ndax insécurité boobu noonu lañu bëgg a jàppoo ak moom tey jii wax naa ko ana suñu gendarmerie ana mu ana sunu gendarmerie exemple bi ma joxe ci Mariama Sagna wala ma joxe ko ci soxna si ne Medina Fall wala paptaal bii nga xam ne li may wax yàggul ay weer matul ay weer exemple bi ma ci joxe boo demee Tamba moo fa xew boo demee saint yi moo fa xew boo demee Fatick moo fa xew mbokk yi rey rey yooyu ana solution bi nga xam ni moom mooy tax jàmm am ci réew mi ana solution bi ana sunu police sunu police anamu wax naa keroog ni nañ leen jox ay matériel yu ko doye ndax sécurité am am na ñoo xam ni boo rayee seen mbokk doo ci génne noonu ah. am na ñoo xam ni soo rayee seen mbokk doo ci génne noonu waaye nag sunu boroom moom teel naa wax ak ñun waaw yàlla tel na wax ak ñun yàlla tel na wax ak ñun wa is qala rabbuk lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa xaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbixu bi amdik wa nuqaddisu laka qaal sunu borom inni qala inni alamu ma la ta'lamun yalla nena je vais établir sur la terre un vicaire khalif Dina wàccee ci kaw suuf ko xamanteni momay ni moy kan moy nit moy man moy jëm doomu adama moy yow mi di setan wala yow mi di deglu yalla nena dina ci kaw sama mais nit dafa foor nit dafa foor mais fii ci Sénégal moom nit fooru fi jëmu doomu aadama fii ci Sénégal moom nit fooru fi ndax amuñu sécurité yàlla nee na dinaa établir ci kaw suuf koo xamante ni mooy sama représentant mais ñun fii ci Sénégal moom na leer na ñépp ni nit fooru fi nit riisu fi ngir lan dañuy jàpp ni ñuy reyndee ginaar ni ñuy reyndee ginaar di ko reyndee xar di ko reyndee giléem Sénégal noonu lañ la fi reynde après en après du mujj fenn fi mu mujj mooy ci Mali foro dama ni Mariama Sagna bii ñu rey ndax waruloon am suivi dafa daw mais nañ ko topp nenañu amna am ñu ne nenañ dafa daw mais koku dañ ko wara top japp ko dañ ko wara top japp ko warul yombé non warul yombé non koku dañ ko wara top mais ñu japp ko parce que tam japp doomu aadama rek ray ko nonu an nafs bin nafs la alquran wax nit su rayé nañ ko ray donte la nak saxaluñ ko ci rewmi donte la loolu lu ñu dàq la mais suñu boroom li mu wax mooy nit ku reyee su reyee nañu ko rey li charia charia li mu wax ci àtte boobu ki nga xamante ne rey na Mariama Sagna rey na ko li ci charia wax ki nga xam ne rey na Pape li ci charia wax mooy man qatala nafsan mutaamidan fa jazaau jahannama lislaam nee na yow agresseur bi yow laay waxal bo raye nit so raye nit te ray gi nga ko ray ya ko tay yow yow la neex dofo jinne japp la nga ci sa sang froid nit nga japp doomu jàmbur rendi ko ray ko jam ko après mu jeex nga dem teddi nelaw mbok yi ku mu dalul do comprendre affaire yi bala nga don comprendre lolou ñu ni sa papa lañu ray balaa nga doon xam ni mu méttee ñu ni sa yaay lañu ñu rey balaa nga doon xam ni mu méttee ñu ni sa doom lañu ñu rey ci ngay comprendre rey jàpp doomu jàmb rey ko mais ñiy agressé ñoo ko tey ñii def agression ñoo ko tey ndax ñoom la neex ñu rey wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan wa xadiba allahu alayhi wa laanahu wa adaluhu azaban azima sunu borom nee yalla yàlla quiconque tue intentionnellement un croyant lo sunu borom wax de sa retribution sera l'enfer wa man yaqtul muminan muta'ammidan la sunu borom